Mhm. regarder sa vidéo et puis ñu recevoir ko moom it aussi waxtaan euh, touti ci euh, parcours bi regardez regardez. Gaza, kilindi Casamance gëllëgëda kilindi ku ni faana ku ku ñi labbu Casamance wo sinno yoola jooji ribora e sunke sumey ni te rammenola Casamance Casamance e suke sume sum Casamance e suke weli jamu gaga dalla damu jamu gaga jamu gaga jamu gaga dalla damu dalla dalla dalla damu dalla dalla dalla damu kazati dalla dalla dalla damu kazati dalla dalla dalla damu kazati nañu saa bu ngeen ko déggee rek ngeen xam ne originalité bi mu àndal Casamance rek la mën a jógee n'est-ce pas donc mu nekk mu am benn touche boo xamante ni foo ko dégg rek dangay xam ne euh, Casamance la jógee donc euh, ñu nuyu la rek bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi asalaamaaleykum nuyu ñëpp di leen nuyu kas maa nuyu bu baax parce que ça fait longtemps maa ngi lay seetaan ci TFM sincèrement parler et puis je sais que c'est une fierté pour moi aussi

ñoom Assou Dié euh, Satou Diédiou uh-huh. Khady Ba maa leen di ziar bu baax Arkia maa leen ziar aussi. jaajëf merci beaucoup alors gis nañ ni que son bi dafa fort ngay way li nga xamante ne moom moo di Casamance man déjà dama la bëggoon lan nga bëgg wone foofu ndax destination Casamance nga bëggoon wane. leneen aussi instant bi gis nañ ni que am na ay xat-xat est-ce que bëgguloon lancer un message bu fort pour nit yi nekk ci jàmm. Oui, bien sûr, parce que son bi dama ko génne. Uh-huh. parce que c' est pour la Casamance. Uh-huh. parce que gis nañu Casamance nu mu mel. voilà am na lépp. lépp loo xalaat ci Casamance am na ko. parce que son bi dama ko woy maanaam pour ñëpp dajaloo. Uh-huh. pël yi joolaa yi baynunke yi ñëpp dajaloo nekk benn parce que Casamance ñoo ko bokk. voilà loolu moo tax ma génnee son bi. inspiré wu pour son bi quoi. waaw euh, euh, particularité lan mooy style musical voilà ndax euh, ci rythme bii rek nekk ci. non foo mu woo ma mu woowee rek ma wuy la parce que reggae a matière de reggae je suis fort en matière de reggae afrobeat aussi c'est comme ça. Mhm. voilà. Casamance bëri na de. Ah, ay Fafadi bëri groupe yu bëri hardcore side. yaa gën a bëri ay daanaan alors euh, euh, présentement daf mel ni Dakar lan mooy sa ay projet voilà samay projet mooy incha allah. damay waaj a génne album incha allah avec Laye Diagne studio bientôt si projet boobu la ñu nekk et ñu ngi gën a liggéey gën a avancé. incha allah Kumba Gaaw la wala ah, moom moo nekk ak ah, moom te Laye Diagne moom ay ndaanaan rek lay liggéey ah, donc moom moo nar a def sa album. voilà donc ñi ngi ñi ngi xaar album bi alors lan lañ mën a fekk ci ci album bi rapidement euh, ginnaaw vidéo bi génn euh, lan ngay préparer pour surtout le public casa casacé voilà maa ngi préparé euh, am na son bu war a single bu war a gën a incha allah ñu ngi koy tudd yaay boy incha allah mhm. bon pour sama sama yaay yu baax yi <laughs> xam nga voilà son <laughs> mais bien sûr. <laughs> yàkkamti naa loolu de donc euh, ñu bàyyi la peut-être nga nga faire un message surtout ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan moo xam euh, Ziguinchor Bignona toute la mm-hmm. Casamance mm-hmm. lan nga am envie wax leen tey. voilà mbaɗi maninkolum manakamoyla mbal be contana ka fa aldingolon voilà momoyla ela turo nasi doron inchallah be ɓe soni ala doma doma mankori kula mm-hmm. comme na fo ñamin doron casamas ntelle tamo ntelle kete kilinti et na nju sol beke kilinti pour Casamance eta mm. et puis naalone carrément Casamance kayrol bi jee et puis kayro ñi laftale pour ay kafundan incha allah ala boo dëgg la de li mu wax nii yëpp ah, dëgg la waaw yow de bu ñu la jaayee <laughs> en tout cas Casamance man dem naa fa demaat fa plaisir <laughs> la ah, la verdure et tout ça. et puis maa ngi nuyu maa ngi nuyu aussi euh, am na ñu xam ne dañoo sonn ci man. dëgg la euh, depuis Côte d'Ivoire. Uh-huh. parce que euh, Burkina Faso Mali Nigéria. partout dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui regardent Fakoli Africa. Voilà, qui moi Fakoli, moi Fakoli. Merci beaucoup ma leen di jaajëfal. voilà <laughs> jërëjëf am na ko ma naan abaa ngi lay bëgg a maa ngi naan dëgg la te yàlla xam nañ li may wax xaw ma ci dara. na eh, eh, mën <laughs> nañ ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax merci beaucoup Fakoli.